Euh, politique moom gestion frustration la sunu démocratie dafa fësal boppam ci jamono ji ndax soo xoolee acteurs politiques yi sur toutes les bases politiques nationales ñu ngi jóg di wane seen ambition di fësal seen bopp mais ñu di ko def pour l'essentiel ci jàmm ak ku nekk di wane sa yéene su ñu demee nag ci sunu coalition ba ñu tànn ba pare nañu jiital nag li nga xam ne nag ca dëgg-dëgg moo tax ñu engagé wu politique mooy améliorer les conditions de vie de nos compatriotes mooy fexe ba suñu dundu suñu dunduy doom ak suñuy doomu doomi doom gën koo woyof ci wàllu coonoy àddina loolu nag mooy sunu différence entre ñun sunu coalition a coalition ñi ñu jàkkaarlool ñi ñu jàkkaarlool amuñ benn projet li ñu bëgg mooy ñi fi ne nañ pousse may leen ñoom ñu toog ñun dañu am projet politique bu joxe ay preuve muy le plan Sénégal émergent ay homme politique yu mucc ay am expérience ngànk coalition bi làq seen ambition bopp jiital ambition réew mi moo tax li muy jafe-jafe pour le moment yéen a ngi dégg les responsables politiques de de Benno kenn waxul ne damay génn waaye ñi ñu jàkkaar lool gis ngeen ne ñi ngi tasaaroo ñi ngi tasaaroo ndax daja ndax dara dajalewu leen ndax ndax li leen dajale yëpp lenn rek la mooy le pouvoir ak buux ñi fi nekk jël seen place loolu nag dafa yomb moo tax ñu ngi invité nos compatriotes à à une mobilisation citoyenne projet contre projet collectivité par collectivité Nous faisons confiance aux équipes qui vont être mises en ligne partout à travers le Sénégal et nous savons qu'au soir de comme par le passé, les Sénégalais seront faire euh, la part des choses entre la bonne graine et loolu lañ xalaat. stage scolaire bi université bi l'école publique est l'institution bi nga xam ne moo ëpp solo ci attelage républicain parce que citoyenneté ci école lañ koy tabax moo li ci ëpp si sujet yi ñuy song ci wàllu éducation nationale ci suñu point de vue warul doon ay sujet polémique dafa war a doon des sujets de consensus ndax xale yi ci classe bi moom suñu doom lañ ak suñuy jarbaat ak suñuy neveu rek a ci nekk donc liñ leen di jàngal qualité bi muy am mooy tax ëllëg ñu am des citoyens euh, de qualité moo tax aujourd'hui Sénégal suñ koy xool ci taxawaayam ci wàllu démocratie ci réewu jàmm bi mu doon ak modèle de citoyenneté bi mu doon c'est parce que les pères fondateurs ak mères fondateurs yi tabax réew mi dañ ci jiitaloon xam-xam ak tàggat xale yi ci condition yoo xam ne dinañ doon citoyen yii ñu doon tey loolu nag suñ ko bëggee di wéyal faw les responsables de l'école les parents d'élèves les enseignants les autorités publiques continuer di am culture de dialogue et surtout ñu daje sur le consensus consensus nag ak dialogue ak concertation dafa bokk ci li nga xam ne mooy mode de gouvernance majorité Benno Bokk Yaakaar ak le président de la République ci aussi autour de l'école publique parce que suñu waxtaanee ci école suñu waxtaanee sur la l'exploitation future des ressources naturelles suñu waxtaanee sur l'enseignement supérieur rikuwaay sur l'essentiel mun nañ cee dégloo parce que c'est pour l'intérêt général loolu la am loo xam ne mun naa ci tontu ci wàllu woowee mais xam nañ ne petit à petit cette culture la dina installé wu suñu réew ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar